الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum sunu mbokki déglukat yi mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te nga xam ne liñ ci jublu rek mooy jàng ci téere bu sell bi nga xam ne yàlla sunu boroom moo ñu ko jox ngir yeeñu ci yoonu jub ci yoonu mucc mbokki auditeurs yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom mi nga xam ne moo ñu may jàmm moom mi nga xam ne moo ñëw teewal yàlla sunu borom fii ci suuf bu leen fàtte mbokki auditeurs yi ne moom bi mu ganesee àdduna ñu ngi ko doon woowee Emmanuel maanaam yàlla ganesi nañu kon jëmm ju mel noonu kuy waxtaan ci moom ak ki koy déglu ay yool rek ngeen ci am jàmm rek nga ciy am jege yàlla sa borom rek nga ciy jëlee sunu waxtaanu tey bi nag dama koy séq ak pasteur Balla Konaté pasteur Balla jërëjëf pasteur Ahmed di la gërëm di la sant di nuyu mbokki auditeurs yi ñuy déglu yépp di la wax euh, ñu ngi naw bu baax a baax sa yaatu ak sa laabiir bi la may ngay bokk ak ñun saa su ne émission bi ni nga ko waxee di ñaan rek yàlla def ci ngëneel te képp koo xam ne déglu na ko mu jànge ci loo xam ne borom bi dina ci mën a sukkandiku ngir barkeel ko ci barke Seydina Isa jërëjëf pasteur Balla sunu waxtaanu tey nag mbokki auditeurs yi du sax guléet ndaxte waxtaan bi yépp ñu ngi ko lal ci téere bu sell bi di bible bi te bible bi li nga xam ne moo ko tënk kenn rek la mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ tey jii nag dama bëgg ñu waxtaan ci lu jëm ci deewam ci faatoom téere bu sell bi dafay wax lu bari lu bari ci deret googu nga xam ne moom sang bu tedd bi nangu na mu tuuru deretam jooju nga xam ne nangu na mu tuuru faatu googu nag nga xam ne faatu na ko ci bant bi dee googu nga xam ne nag dee na ko ci bant bi moom laa bëgg ñu waxtaane tey jii maanaam xool lan mooy solo dee soosu nga xam ne dee na ko ci bant bi kon ma tàmbali ko ak pasteur Balla mu wax ci
waaw pasteur Ahmed jërëjëf am nga dañuy fàttaliku ni yàlla li mu njëkk a sàkk ginnaaw bi mu defaree àjjana ak mala yeeg li li ci tegu yépp mooy suñu maam Adama ak Hawa mu dugal leen ci bërëb boo xam ne bërëb bu yànj la tabaar fakal la ñu nekk fa ñu ñuy wax ni ñu xëy benn bés yàlla mi leen fa dugaloon génnewaat leen fa la tax mu génnee leen fa ndax dafa am lu tàbbi ci seen dund te loolu ci dund bu mu tàbbi xajootul ak yàlla muy bàkkaar euh, defuñu ñaar defuñu ñett defuñu fukk ci ni ñu ko téere bu sell bi àndilee lenn la leen yàlla tere woon ñu bañ koo déggal ñu def la mu leen tere woon loolu doy yàlla génne leen te téere bu sell bi di ñu wax ni bi mu génnee Adama ak Awa dafa tëj buntu àjjana jël ab malaaka teg ci bunt bi ngir mu koy aytu kon laaj bi léegi mooy nan lañu mën a def ba bunt boobu yàlla tëj mu mën a ubbeeku ba aadama ak awa ak ñi soxeekoo ci moom mën a dellu si waat ci biir àjjana tontu bi mooy lañu def ba tax yàlla génne leen fa fekk loolu deñul ca ñoom mënuñu dellu si ci biir àjjana kon pour ñu mën a dugg àjjana faw lañu defoon ñoom te loolu sabab seen génn loolu man faa deñ te ngir loolu man faa deñ nag pasteur Ahmed téere bu sell bi dafa am lu mu ñu wax daf ñu wax ne lañu def ñoom taxalul seen yaram taxalul seen der waaye la mu tilimal mooy seen ruu te ruu doomu aadama ndox àggu fa saabu àggu fa la koy tax a set yàlla sunu borom moo ko wax moom mi nga xam ne ruu ci moom la jóge yàlla sunu borom moo ne lii setal ruu doomu aadama deret la kon deret moo mën a tuuru ba li tilimal ruuwu doomu aadama deñ bu deñee nag doomu aadama mën a dellu si ci ki nga xam ni mooy yàlla sunu borom.
jërëjëf pasteur Balla Konaté kon ni ñu tàmbalee waxtaan bi seetlu naa ne yéen mbir mi yéen a ngi ko tàmbalee ci njalbeen ga ba yàlla sunu borom sàkkee aadama ak awa ngeen bokk ci wax ko te da ngeen ko tibbee ci téere bu sell bi ne am na lu xew bi loolu xewee nag téere bu sell bi dañuy wax ne yàlla sunu borom dafa jël ab gàtt ci tool bi faat ko tuur deret gi bi mu tuuree deret gi mu laal suuf mu jël der ba defal leen ko mbubb aadama ak awa ñu génn nag ci bërëb bu sell boobu ñu nekkoon waaw ma leen di laaj kon mbir mi ndax mi ngi tàmbalee ci njalbeen ga maanaam ci njalbeen ga la yàlla sunu borom tàmbali di màcckat ne ah foog dara tuuru daal ndax ndax noonu mën nañ ko gisee noonu waaw pasteur Ahmed noonu la sax du noonu lañ ko war a gisee ndaxte wax nga ko yow sa bopp téere bu sell bi daf ñuy jàngal ni bi aadama ak awa bàkkaare tiit dafa dugg ci seen biir xol muy loo xam ne xamuñu ko woon li andi tiit ci seen biir xol mooy ne dañu yëg ci saa si ni def nañu loo xam ni musiba rek la leen mën a jural dañu yëg ci saa si ni def nañu loo xam ni dina andi dog-dog seen diggante ak seen borom ñu daal di tiit waaye bi yàlla ñëwee ba waxtaan ak ñoom te loolu tamit di ci du addi lu am solo mooy ni yàlla day nemmeeku doomu aadama yàlla dafa bëgg a xam doomu aadama ci lu mu ne ngir di ko di ko andil saafara saafara bi yàlla andi ci jafe-jafe bi nga xam ni aadama ak awa ci lañu tàbbal seen bopp wax nga ko mooy dafa jàpp gat mu rey ko tuur deret bi ngir sàng ci saasi li nga xam ne moo nekkoon yaramu neen bi ñu def ngir andi sutura ci ci ci seen bopp bu gàtt bi tuurul woon jafe-jafe dina am jafe-jafe dina am ndaxte du ñu mën a taxaw ci kanamu yàlla ndaxte bàkkaar day futti doomu aadama ci kanamu yàlla ba de mu mu mel ne daal ku ku ku ku sàngoowul dara voilà pasteur wax nga ko te te te xam nga kilifa bu mel ni yàlla munoo taxaw ci kanamam te dara sàngoowoo dara dara muuru la la ah loolu mu nekk jafe-jafe yàlla jër der der bi nag muuree leen ko muuree leen ko waaye ci kàddu bu sell bi yàlla wax fa wax bu am solo mooy ne lii ñaari misaal la benn bi mooy ne deret bii ma tuur moo ma may li ma leen mën a muuree yéen ba ngeen mën a taxawaat sama kanam deret bii ma tuur moo ma may der bi ma leen muuree ba ngeen mën a taxawaat sama kanam waaye deret boobu doyul ndaxte bu doyoon yàlla dina leen bàyyi biir àjjana kon deret boobu yàlla daf ko tuur mu nekk misaal mu nekk ndigganiku kon ñu ngi toog di xaar lu gën a fort deret boobu lu gën a baax deret boobu nga xam ne da leen di muur ba abadan day dindi la fa nekkoon andi fa lu bees ba bu ñu dellu see ci teewaayu yàlla mu doon loo xam ne day wéy kon ca njalbeen ga rek yàlla mu ngi wane ne deret la ñuy sukkandiku waaye nag du doon deret boo xam deret bu jóge fu ne rek ah du doon deret bu jóge fu ne mais boobu beneen deret la encore.
waaw jërëjëf dama lay damay damay bëgg a tëjee xaaj bu njëkk bi rek ci benn loo xam ne yàlla sunu borom wax na ko bi loolu amee nga xam ne aadama ak awa wan nañu ginnaaw li nga xam ne moom la leen yàlla sunu borom waxoon maanaam ay digaaleem toppuñu ko ba def na ko sudul noonu wante yàlla sunu borom dañuy gis ci ci ci tawreet ci njalbeen nga muy wax foofu ne kat ah bés dana am lu may def maanaam ki waral yéen ngeen dem ba dumóoyu maanaam saytaane danaa yëkkati koo xam ne ci jigéen lay jóge dana xeex ak moom te dana ko daan waaw lu mel noonu yàlla sunu borom wax na ko dig daf ko dig doomu aadama daf ko dig aadama ak aw maanaam daf ñu ko dig ñun ñëpp ne kat bés danaa yëkkati koo xam ne ci jigéen lay jóge te kooku dana daan saytaane mbokki auditeurs yi kon ñuy wéy ci sunu waxtaanu tey bi nga xam ne ñi ngi ko lal ci lan mooy solo de faatu googu nga xam ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ faatu na ko tuur na deretam ci bant bi ñuy xool solo bi mu am nga xam ne amal na ko doomu aadama amal na ko képp koo xam ne yaa ngi ci kaw suuf téere bu sell bi day wax ne ci euh, euh, xaaj bi ñu jagleel yahud yi mi ngi wax foofu ne ndaxte ci yoonu Musaa daanaka deret lañuy sellalee lépp te bu deret tuuruwul mbaalum bàkkaar du am ma bamtu ko waat ndaxte ci yoonu Musaa daanaka deret lañuy sàlle sellalee lépp te bu deret tuuruwul mbaalum bàkkaar du am waa pasteur Balla loolu de saar bu am solo la bu diis
waaw pasteur Ahmed Sarr bu am solo la euh, euh, rawatina nag ñañ ko wax muy yawut yi di bani Israël dañ leen delloo ci seen diine ñoom muy yoonu Musa mu mu leen di wax ni ci yoonu Musa deret mooy sellal doomu aadama xam nga bani Israël pasteur Ahmed bi leen yàlla génnee biir Misira andi leen ci suuf soosu nga xam ni moom la leen digoon jaarale ko ci seen maam euh, Ibrahima laata ñuy agsi foofu dafa am fu ñu taxaw ci digg manding bi ñu koy woowee tunduk Sinaay mu am kóllëre bu dox foofu seen diggante ak yàlla foofu nag la leen yàlla waxee ni yéen bani Israël man dama sell te dama bëgg ngeen sell noonu la leen ko waxee da ngeen war a sell ndaxte man dama sell te ngir ngeen sell yéen bani Israël faw ngeen tuur deret li ko dalee ci ci ci nag bu góor bu mag xaw ma nuñ koy waxee yëkk lañ koy wax waaw yëkk ba ci pitax bi yàlla dafa ne faw doomu aadama bi bu bàkkaaree mu tuur deret ngir mën a sell kon waaye comme bëgg na sóoraale ñëpp sànq suñu mbokk mi uh, faal wax na ko yàlla dafa bëgg doomu aadama te am yërmande ci moom xam na ni ñëpp amuñu njëgu nag xam na ni ñëpp amuñu njëgu xar ñëpp amuñu njëgu béy waaye li ko dalee ci nag ba ci pitax yàlla nee na faw nga tuur deret ngir say bàkkaar mën a deñ nga man ma jege moo tax ci jamono yonent yàlla Musa bu yawut mosoana bàkkaar day jënd li nga xam ne loolu la dooleem tollool bu dee xar la mu andi ko ci sëriñ su mag sa fa nekkoon ca jamono yooyu ñu tëral xar ma mu jël loxoom teg ko ci kaw xar mi sëriñ su mag si jël paaka bi rendi xar mi li mu doon tekki ci ñoom li mu doon firi ci ñoom mooy ne loxo yooyu mu jël te muy loxo yi bàkkaar teg ko ci kaw xar ma bàkkaar yooyu wàcc na ci xar mi deret mi tuuru mooy sirndeel ni sellan nañ ko moom ndaxte fayu bàkkaar téere bu sell bi daf ñuy wax ni mooy dee pasteur Ahmed ndaxte bor nag ku ko amee ku ne war koo fay koo fay bor moom ku ko amee ku nekk war koo fay te bor bi ñu ameel yàlla boru bàkkaar la yàlla mu ne li koy fay mooy dee mais comme mbokk mi wax na ko sànq yàlla dafa bëgg bani aadama buggul mu dee mu ne ko le fii ak may andi li ma war a andi dinaa la jox jumtukaay boo xam ne di nga ci mën a sukkandiku ngir xaar li nga war a xam ne moo war a ñëw jëmi jamono loolu muy sukkandiku mooy mala bi bu ci tegee tànk loxoom bàkkaar yi wàcc nañ ci mala bi te comme fayu bàkkaar mooy dee te bàkkaar yi wàcc na ci mala ma kon mala ma dee na ca palaasu waaja ngir waaji mën a dund ci bind téere bii yawut yi loolu la leen di fàttali ne yéen ci seen bopp xam ngeen ni ci seen diine muy yoonu yonent yàlla Musa bàkkaar deret moo koy dindi kon faw deret tuuru ngir jéggalu bàkkaar mën a mën a am waaye mu leen di fàttali tamit ci téere boobu ni bu ñu ko jàngoon yépp bu ñu jàngee yenn aaya yi mu leen di fàttali ni waaye xam ngeen it ni ci jamono yonent yàlla Musa saa soo bàkkaaree rek war nga tuur deret lan moo tax ndaxte deret ba ngay tuur amul maxaama wala dara jaw dindi say bàkkaar benn yoon ndaxte nag wax dëgg fa yàlla war nañu xam ni xar manul jot doomu aadama nit mënul jël tey sa doom bu góor yóbbu ko andil la benn xar ne la boo mu ngi nii ma remplacer la ko sa doom ji ah nag waaw mënul nekk xanaa kay mën na la ne bon téyel ma nag bi le temps que may dem andi xale bi ah nga jëlaat ma jëlaat nag bi donc genre misaal yooyu la woon ni gëndiku la woon le temps que nag lu mën a jot dëgg-dëgg lu lu fo lu fort ba ñu ko mën a méngaleeg ruuwu doomu aadama mën a ñëw pour fayal ruuwu doomu aadama boobu donc fàttali yooyu la leen di fàttali fii ne yéen ci seen bopp xam ngeen ni depuis njalbeen même ci diine wu yonent yàlla Musa deret mooy yi dindi bàkkaar pasteur pasteur Balla damay damay damay dellu si ndaxte da nga ne yahud lay waxal foofu yahud yi te ku nekk xam ne ne yahud yi yàlla sunu boroom moom moo leen moo leen tàggat moo leen jàngal moo leen won boppam jaarale ko ci jëmm ju ju ju am maanaa googu doon yeneen tam Musaa wante dañuy gis ne ñoom ci seen ci seen ci seen nekkin ak ni nga xam ne noonu la seen seen seen euh, euh, que- seen histoire dañu mës a bi leen yàlla sunu borom di leen génnee ci loxo Firawna dafa am benn sas bu am solo bu mu leen sasoon guddi gi nga xam ne mi ngi leen di yeewi ci loxo Firawna nga xam ne Firawna da leen noot noot gu métti daf leen jaam mënatuñ leen seen bopp dara di ko liggéeyal fu mu leen joxoon ñu jaar yàlla sunu borom guddi gi nga xam ne daf leen di yeewi ci loxo Firawna goreel leen daf na leen kat foog ngeen rey ab gàtt tuur deret bi jël deret bi raatale ko ci lento yi bu boobaa malaaka bi nga xam ne moom mooy ñëw won Firawna firnde bi nga xam ne bu fa jógee dafa leen di goreel bu gisee deret jooju dana tëb seeni kër dem ci yeneen kër yi wàccee fa mbugal bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom ne woon danaa ko mbugal Firawna waaw xam nga lo loolu foofu deret kon dañu gis ne ñoom goreel nañ leen ci kaw tuur deret waaw pasteur Ahmed xam naa ni xam na nettali boobu bu baax waaye da nga laal aaya wala jamono ci dunduk yawut yi boo xam ni man saa yu ma fa àggee yàlla sunu borom daf may jàngal lu bëri gis nga guddi googu ñuy woowee guddi jéggi ga jéggi ga.
ah te ñu tuur fa deret ba ñu rey mala ba def deret bi ci bunta bi dafa am lu am solo lu fa am yawut yi yawut yi ñoom ñooy mbooloo mi nga xam ni yàlla daf leen tànn jaarale ko ci yonent yàlla euh, ibrahima mu yabal leen yonent yàlla musa wax nga ko muy góorug yàlla dëgg yàlla sukkandiku ci moom def ay kéemaan yu am doole biir misira waaye gis nga guddi googu muy guddi jéggi bi yàlla booy xool day mel ni xamatul kan mooy yawut ak kan moo dul yawut xàmmeetul égyptien bi ak yawut bi li mu wax mooy ne malaaka ba ba ñë- bu ñëwee moom du laaj kenn sa carte d'identité Déedéet.
du laaj kenn sa juddu Déedéet.
du laaj kenn kuy sa papa li muy xool mooy ndax deret baa ngi fi wala newu fi bu fi deret bi nekkee mu jéggi bu fi deret bi nekkul mu dugg fàkk fàkk fa nekk kon mu wone ni deret bi rek mooy garanti waaw ndaxte ndaxte Moussa sax mi ngi leen koy biral bu ñu jàngee ci téere bu sell bi Moussa mi ngi leen di fàttalikat naan leen ah farlu leen ndaxte bu deret ji nekkul ci lent bi acte bi ñuy teg waa kër Firawna moom la ñuy teg seen kaw dëgg la pasteur Ahmed ndaxte bu deret bi nekkul ci ban bi rek baakaar baa ngi fi te bu fa baakaar ba nekkee nag yaa xam da ngaa xees da ngaa ñuul da ngaa xonq sa sa papa pasteur la wala sa yaay day liggéey ci église bi amul solo li am solo mooy ndax yow sa baakaar deñ na te pour sa baakaar deñ faw deret ba nekk fa kon deret bi rek ci la yàlla di sukkandiku leneen amalu ko nji- euh, soxal euh, soxalu ko li ko soxal rek mooy mooy deret bi jërëjëf pasteur Balla kon daal ñi ngi gis fii solo si nga xam ne deret am na ko deret bu ñuy xool ci téere bu sell bi bu ñuy xool ci kóllëre gu gu njëkk gi bi ñaan ancien testament yàlla sunu boroom daal digganteem ak nit mi ngi fee wane yërmande wante yërmande googu ah mi ngi koy lal ci kaw saa su nekk ñu mën a tuur deret ngir mu baal leen seeni bàkkaar bi ci gën a am solo nag mooy bi ñu wax sànq mooy bi mu jàngal yahut yi naan leen kat foog ngeen tuur deret ngir ma mën leen baal seeni bàkkaar ngir ngeen mën ma jege yàlla sunu boroom nag téere bu sell bi daf ñuy wax ne kat fi ñu ko jàngee sànq ci ci ci ci xaaj bi ñu jagleel yahut yi da leen di wax foofu ne leen ah deret jooju ngeen di tuur de dëgg la ne am na solo wante doyul waaw pasteur Balla waa jërëjëf ni nga ko waxee daal noonu la xam nga sànq da nga fi wax wax bu am solo mooy ni yàlla dafa bëgg doomu aadama bu ñuy jàng ay téere yi yàlla dafa yónni yonent yu bari ci kaw suuf te damay faral di wax ni saa yu yàlla yónnee yonent rek bani aadama war na ci jàngee ñaar yi bi ci njëkk mooy ne nekkul di topp charte yàlla yi ndaxte bu doon topp ndigalu yàlla yi yàlla du yónni ab yonent ndaxte yonentam yonentu yàlla saa yu ñëwee rek li muy wax mooy ne yéen a ngi sori borom bi te loolu di li gën ci yéen loolu mooy benn ñaareelu jàngat biñ ci war a jàng mooy mbëggeel ak cofeel bi yàlla am ci bani aadama ndaxte bu- sa noon boo ko gisee muy def loo xam ne da koy lor da ngay du mooyu te di ñaan mu gën cee gaaw a dugg ndax mu loru waaye ki nga bëgg boo gisee muy jël yoon boo xam ne du bu baax ba kooku kat da ngay waaxu dab ko ne ko sama waay taxawal ndaxte da nga réer yoon bi ngay jël du boobu kon yàlla di wane ci yonent yi bëgg bi mu ñu bëgg waaye di wane ci yonent yi tamit ni yoon bi ñu jël du bu baax bi loolu lay wax ci gémmiñu yonent bu mel ni yonent yàlla Ézéchiel yàlla di fa wax yonent bi ne ko dama bëgg doomu aadama yi xam ne sama bëgg-bëgg man yàlla du baakaarkat bi dee ci ay baakaaram dugg safara sama bëgg-bëgg mooy mu dëddu ay baakaaram dellu si ci man ngir ma man koo sellal ñu ne ko waaw mais yow yàlla nan nga mën a defee loolu mu jox ñu tontu bi ci baatu yonent bu mel ni yonent yàlla Esayi mu ne jamono dina ñëw dinaa leen yabal koo xam ne day juddoo ci jigéen comme ni nga ko waxee woon pasteur Ahmed ci téerewu njalbeen ba bu ñëwee ni Adama ak Awa jàmmarloog seytaane ba seytaane noot leen moom dina jàmmarloo noonu ak seytaane ba noot seytaane moom ci boppam ba dog buumu jaam bi nga xam ne moo dox seen diggante ak seytaane ñu ne ko waaw mais yow yàlla yow yaa wax ci téere bu sell bi ne ko ni ne ni ba fayu bàkkaar mooy dee yow yaa wax ni bu deret tuuruwul jéggalu bàkkaar manuta am kon kooku nan la ñu mën a yeewee ci nooteelu seytaane mu ne kooku dina ñëw juddoo noo xam ni ak dundee noo xam ni bàkkaar du ko jege te du ko xam day sell day sell dina ëmb ci ndeyam di ab jànq bu xamul góor dina ëmb ci kàttanu xel mu sell mi mu juddu ci mu ëmb ci xel mu sell mi juddu sell dund dund gu sell màgg dund màggaay gu sell ay jëfam ay waxam lépp daal di sell kooku dina jàmmaarloog seytaane te dina daan seytaane ñu ne ko waaw waaye même bu daanee seytaane ak dundam bu sell boobu ba léegi dafa am lu des ñun mu ne loolu mooy lan ñu ne ko yow yaa ne bu deret tuuruwul jéggalu bàkkaar mënuta am mu ne kooku doon na koo xam ne pare na ngir dee ngir yéen ni ngeen doon jëlee xar yi saa su ngeen bàkkaaree di ci teg seeni loxo ñu leen di rendi deret ba di tuuru ngir ngeen am jéggalu bàkkaar te ngeen xam ne loolu doyul ndax saa su ne da ngeen ko war a def dinaa leen andil koo xam ne nag deretam moo gën a foor sax booy xool deretu doomu aadama ngir bu fayalee doomu aadama benn yoon rek jeex na xam nga pasteur Ahmed bu dee da nga gis nit koo xam ni ci misaal day day day leb bés bu nekk fukki dërëm day leb bés bu nekk fukki dërëm ñu ko koy toppee muy të di bañ a fay waaye bu bu lebee fukki dërëm rek sama mbokk mi faal ñëw dugal ñetti dërëm xam nga des na ñaar dërëm bu lebee fukki dërëm rek mbokk mi ñëw dugal ñetti dërëm ba benn bés rek mu am benn waay bu ñëw rek ne mëng un milliard ci kaw taabal bi ne fukki dërëm fukki dërëm yi muy leb un milliard a ngi ni nañ ko ci dindi waaw mais fukki dërëm fukki dërëm un milliard waa ji mënul dund luy lekk un milliard yooyu mënul lekk dund luy lekk loolu loolu misaal la rek ah ci deretu Yeesu Krista ni mu fooree ba mën a fay bépp baakaar boo xam ne weesu na mu ngi fi wala war na ñëw ëllëg ci suñu biir dund yàlla mu ne nit ku mel noonu laa leen di yabal yonent yàlla Esayi wax ba wax ni nga xam ne noonu lay juddoo wax ba wax ni nga xam ne noonu lay deewee wax ba wax ci diggante ñi ñu ko war a daaj ci ban da bi wax ba wax ca bàmmeel bañ koy suul wax ba wax na muy dekkee ñetteelu fan ba
te dogguma la sax ndaxte yonent yàlla Esaay day wax foofu ne dee jooju muy dee sunuy bàkkaar a ko waral da koy leeral da koy leeral nañ pasteur Ahmed ba ne sax dee boobu muy dee aussi mooy tax mu jot ñu bëri waxul ñëpp nag dafa ne muy jot mu bëri parce que yàlla aussi xam na ni wooteem du ñëppay wuyu du ñëppay wuyu waaye képp ku wuyu rek dina la jot ndax deretam boobu ku dogu rek am nga ci ku dogu rek foo mënta juddoo jamono joo mënta juddoo xeet boo mënta bokk làkk boo mënta làkk boo jébbaloo ci moom bokk nga ci ndaxte deret bi doy na mot na sëkk tabaari fa kàll kon kooku nag mooy ki nga xam ne moo waroon a ñëw jëmi jamono te damay faral di wax fii ci sa émission bi saa yoo ma baaxee ba ma man cee bokk damay faral di wax ni suñu mbokk sénégalais yi euh, nañu bàyyi ñaaw njort ndaxte ñaaw njort da lay xañ bu bëri nañuy gëstu téere yi Euh, te wax dëgg yàlla nag suñu suñu mbokk yi nga xam ne ñooy suñu mbokk jullit yi te ñu dëkk ak ñoom dëkkin bu rafet ah di demalante di di ñëwalante euh, ci so ci sama dégg-dégg bu gàtt dinaay faral di dégg seeni borom xam-xam di wax ni euh, seen yonent bi moom ci boppam daf leen di wax ni bu ñu amee lu ñu bëgg a gën a leerlu wala mu réer leen nañu gëstu ci téere yu njëkk yi muy tawreet saboor ak injil kon ah loolu ndigal la boo xam ne daf leen ko jox te ñun ñu koy rafetlu ndaxte ñun it dañuy gëstu ci seen téere parce que boo nekkee nit ki da nga war a xam lan la gëm pour que seen nekkin mën a gën a rafet kon bu ñuy gëstu ci téere bu sell bi dinañu gis téere boobu ñu dippee yawut yi te bu ñu ko jàngee dina am lu bëri lu mu leen yee lu bëri lu mu leen won ci li nga xam ne mooy njëriñu deret bu tuuru rawatina nag deretu Yeesu Krista ngir bani aadama mën a am mucc jaarale ko ci moom jërëjëf pasteur Balla damay damay leeralal foofu sax benn mbir ndaxte sang bu tedd boobu di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ bi mu ganesee àdduna ba tàmbali mission am taalibeem yi ñëkk yi ñëw nekk fukk ak ñaar daf ci njalbeen ba daf leen leeralal mbir da leen nekkat xool leen ma man jëmm ji nekk ak yéen fokk ñu tuur sama deret musu ko laam-laamee dafa leer musu ko laam-laamee daf ko mus a wax mu leer te njalbeen ga ba bés sax mu am kenn ci ñoom ku ñaan Pierre mu wax ak ñoom ne leen kat man foog ma dem Yerusalem ñu jàpp ma fitnaal ma sonal ma daañ ma ci bant bi tuur sama deret bi mu waxee loolu lu ko Pierre tontu dafa ne ko ay la yéwén loolu du am sang bi yow kay mënuloo faatu mu ne ko sori ma saytaane ndaxte lu waroon am la ba tax ci dolli bu ñu jàngee ci téere yahud yi yàlla sunu borom mi ngi wax foofu naan kat man sonn naa ci deretu mala yi ngeen di tuur wante danaa ko yónni jox ko jëmm jëmmal ko mu wàcc seen biir mu doon sarax danaa ko yónni boobu mooy kan moo doon Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ waaw waaw li nga wax foofu am na solo da nga ne lépp a mat nee nga yàlla dafa bëgg a matal mbir mi ba nga xam ne dara dootul jóge ci ñun nga xam ne dañ ko war a def mu demee ni ki sarax ak yu demee noonu ngir mën a rax taxal suñu diggante ak yàlla suñu borom waaw loolu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ wax na ko bi mu nekkee ci bant bi bi nga xamee ne deretam mu ngi tuuru mu xam ne léegi ruu gi mu ngi dem dafa ne lépp mat na kon amul dara luñ ci yokkati lépp mat na li yàlla suñu borom waroon def ngir rataxal digganteem ak doomu aadama ngir ubbil ñu buntu jub buntu mucc buntu texe moom la Seydina Isa almasi bi matal ci bant bi bi mu tuuree deretam kon mbokki auditeurs yi ñu gis foofu ne ci dëgg-dëgg faw deret soosu tuuru suñ yàlla sunu borom moo ko namoon ngir yow ngir man ngir képp koo xam ne doomu aadama nga loolu moo waral bi yaxya ibnu zakariya gisee Seydina Isa almasi bi bi mu ko njëkkee gis dafa ne xool leen mburtum yàlla maa ngi ne le mburtum yàlla mooy kan mooy ki nga xam ne moom lañu waroon saraxe ci bant bi moom mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ te deret jooju tuuru du dara lu dul li yàlla sunu borom soob ngir mën a far sunuy bàkkaar danañ dellu siwaat fii ci sunu émission wéy di waxtaan ci solo deret soosu nga xam ne yàlla sunu borom soob na ko ñu tuur ko muy deretu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ kon mbokki auditeurs yi bàyyi leen xel ne faatu na ci bant bi kenn du ko laam-laamee keneen faatuwul ci palaasam moom ci boppam moo faatu ci palaas bi bu doon keneen moo faatu ci palaas bi kon tey jii ngal la ñun ndaxte ba léegi kon suñuy bàkkaar a ngi suñu kaw kon ba léegi buntu mucc amul buntu texe ubbeeguñ ko wante yàlla sunu borom ci baaxam ci yéwénam ci laabiram ak ci bëgg ñu soob na ko mu ne kat jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ doon jëmm ju mat sëkk dana yéeg ci bant bi dana tuur deretam ngir mën a far suñuy bàkkaar yal na leen yàlla sunu borom barkel yal na wéy di wàcce ay yiwoom ci seen kaw yéen ñëpp ñu ñuy déglu képp koo xam ne yaa ngi yewoo fii ci biir Sénégal yal nañu yàlla sunu wéram wéy di leeralal lii nga xam ne dafa jëm ci jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yesu Christ jërëjëf pasteur Balla Konaté jërëjëf pasteur kon ma leen fàttali rek sunu numéro de téléphone di 77 074 35 35 wasalaam
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
الرب